la ji bi def ba mu nangu jaay. waaw ah, man jàpp na ko. waaw loolu la ji bi def ba mu nangu jaay. waaw loolu mooy problème. waaye ndaw yi bu ñu ñëwee ba ñu def dara amul. mais mais balaa ñu ji di ñëw ñu ñëw ci atelier. man maa ngi tudd Gouma Ba. Kumba baax waaw euh, la yàlla nattu bi nga yaa jiite ETDS waaw man maa yor entreprise Touba Darou Salaam waaw fii si fan la si kër saa Sow Thiès man dem ci guddi lañ ma fekk euh, sama kër sama dëkkandoo bi jaaykatu banaan bi moo woo si fekk woo na ma téléphone ba son jotuma man man su may tëdd ay vers une heure man su may tëdd damay jël sama téléphone ko silencieux après ñoom ci lañ ñëwee fëgg kër gi ne kii bi mu ngi tàkk ci laa déparé sama kër jàmm gën ñëw fekk affaire bi di lakk waaw loolu loolu rek nga si am waaw loolu laa ci ama ah. sa entreprise yi si lan ngay yëngu may def bois damay def fer damay def aluminium waaw général laay def euh, kañ nga installé wu fii 2014 2014 guléen mi am lakk-lakk mi mu ngi doog am waaw a ko def wala dara dama gëm ne yàlla moo ko def rek waaw mais lu ne am na sabab est-ce que aussi installation yeeg yooyu yëpp peut-être hmm. enquête dina non ba ñuy wàcc ba ñuy wàcc gars yi coupé nañ courant bi parce que lañ naa ki yor parce que man moment boobu man sama benn xarit buy jabaram gaañu laa demoon jaal ji dem teel a wàcc dem ay mais ki yor euh, affaire boobu ba ma ko laajee dafa ne ma moom coupé na courant bi kon moo tax ma ne lu war a indi loolu pour ma ne lii la quoi bëgguma cee bàkkaar moo ñëw fii la fekk sapeur ah ah. waaw ñu ngi gis ba heure bii nii daanaka ñu ngi fay ba léegi non sapeur kenn lu ne def nañ ko ah. bu doon ñoom dong la kon fay na ma dëgg yàlla wax tamit dëkkandoo yu baax ñi ma dëkkal ñoom dama ñëw fekk naa ñoom tamit ku ci nekk li nga war a def yaa ngi koy def mm-hmm. mais xam nga lu war a moom dafay am quoi. waaw mais si courant yi ah. waaw. benn genre matériel moo nekk si biir nii ba fay bi sax jafe nii. waaw moo xam nga dama am euh, ay chantier yu ma yor fii ci biir damay liggéey ay chambre à coucher damay liggéey fii benn chantier moom ay table banc la moom état bi laa koy defaral waaw. yëpp mu ci biir mu ci biir du lépp nag lenn laa ngi fii yeneen yi mu am feneen fi ñu ko wax parce que xajul fii hmm. mais li nekkul fii ci biir moom lépp lakk na. ay matériel machine yi mu fi nekk lépp lakk na. comme lan moo fi nekkoon ci machine machine yëpp lépp lu ma mën di yor yor naa machine am. Hmm. machine yëpp a lakk benn desuti même bi ma mujj jënd bu bees bi sax daa lakk. xayma nga ko. donc affaire moom xayma boo ko bëggee xayma moom. waaw mais yow yaa ko jënd war nga. machine yi yeeg fi nekk ci place bi. ak bâtiment bi te bâtiment baa ngi màbb na day wàcc. waaw lu mu gàtt gàtt mun a jege ay huit cent millions. effectivement matériel bi waaw huit cent millions. un milliard. fii ñu fi xëy environ ci biir place bi war nañu mat ay quinze seize. waaw mais am na ñeneen ñu may liggéey ci biti yoo xam ne presque mën nañu ne soixante personnes. waaye kenn fanaan loolu mooy. gàncax non fi kenn du fanaan déedéet. Mhm. waaw fi kenn fanaan. ok est-ce ma ko du ma fenn. waaye ah, assuré ma ko. ah xam nga man affaire bi moom dama jàpp ne ndogal suñu borom la léegi nag lu ci mën a nekk rek ñu xam ne affaire daal mu ngi ci loxo yàlla doxuma ko ci loxo kilifa yi nekk ma ci yàlla laa ko teg mhm. parce que moom mooy doxal moom moo yor kilifa yi mhm. waaw man amu ci benn lu ma ci euh, inquiété lu ñu def baax na suñu deful bu ma foraatee ma defaat parce que maa ko defaat état jox ma ko. Mhm. état mosuma jox cent franc lii may defar nii cent franc. kan nga si wàllu menuiserie. yàgg na ba mu juddoo ba léegi. foo ko jàngee. danaa ko jàngee sama patron mu tudd Saliou Cissé gaañu na. doomam sax mu ngi fii. fii ci Thiès fii ci Thiès. ñëw sous na fi. police ñëw na fi. sapeur ñëw na fi. waaw ñu baax ñëpp ñëw na ku ko yëg rek ñëw na. da ngay xool fi taxaw nii ñu ci ëpp man maa leen jàngal métier ñi ngay fii yëpp ñu fi ëpp moom naa la jàngal métier ku ci nekk ba mu yëgee problème bi rek képp ku ci nekk bàyyi nga lee dafa ñëw ñibbisi boo fa ñëw dem ci guddi dafa fees dell guddi gi dafa fees dell li fi nekk ci guddi sax moo li fi nekk ci bëccëg barke yonent bi waaw amoon nga ay extincteur rek matériel bu mën a fay lakk bu amee si biir yooyu yëpp amoon ci biir maa ngi tudd Moussa Yékini euh, nekk marié Babacar pour commencer kii du dëkkandoo ci man rek la ci man parce que maa ko yar jàmm gën ñu nekkoon fa jugee jàmm gën mu ñëw ubbi fi entreprise mu tuxu si fekk ko fi quoi vraiment muy ndaw loo xam ne ni mu ko waxee maanaam métier mi da cee yàgg parce que ci la ci la juddu bi mu nekkee xale ci la nekk commencé si table nag kenn dimbale ko du état du kese mu koy liggéey bu ubbi entreprise am di jël ay centaine de doomu aadama di leen liggéeyloo quoi vraiment aussi def fi matériel boo xam ne lépp ñàkku boppam la ko defee xam nga vraiment muy lu métti ñëpp na waa koñ yéenewu ko dégâts bi du yem ci matériel bi yëpp mais day yem ci nit ñi parce que ñi ngi jëm tabaski te leer na ma ni am na doomi aadama yoo xam ne am na boroomi kër yoo xam ne seen tabaski ak bu jëm seen tabaski moom lañ ko wékkoon te xam naa ni yàlla may na ko jom joo xam ni ñooñu du tas seen yaakaar xam nga am na wax bu mu wax dëgg nag wax dëgg yàlla am na solo état mosu koo jàppale mais ñun ñooy demandé état jàppale ko damay ja demandé état président de la République Diomaye Faye en tant que sénégalais mu jàppale ko mais damay euh, demander aussi euh, premier ministre Ousmane Sonko man tant que en tant que responsable politique Pastef ñu jàppale ko ci lii mu nekk parce que suñu masaana soxla dañuy ñëw ci moom. Euh, ñi ngi woote sept sept dimanche dañ doon ñëw ci moom pour mu joxe participation samedi bu mu joxe participation lu ñuy def dañuy ñëw consulter ko mu joxe ko lii métti na te lii man mënu mu koo régler keneen mënu koo régler li mu yàqule mesures matérielles yi. mënuñu ko euh, régler si benn weer du ñaari weer du ñetti weer lot na si doomu aadama mu kii ko kon dañuy invité état mu jàpp ci jàppaleen ñu ko parce que euh, njëriñ bi mu am ci euh, waxuma la koñ bi mais cee Sénégal wax ngeen ko am na ñoo xam ni tey jii yoon nañ entreprise moom la ñuy wékku moom moo leen jox matériel bu ñuy liggéey moo leen jox ay marché kon kii vraiment ñun fekkoon man nañ ko tey tey tey lu mu yàqule dañ ko koy jox mais mënuñu ko mais dañu koy demander état xale na nag ku gëm yàlla la parce que boo déggee ni mu waxee xam ne ku gëm yàlla la moom mbir mi fi ko nit ñi teg xëy na moom tegu ko fa mais dafa war a tegu parce que dafa amal njëriñ doomu aadama yi dafa amal solo doomu aadama président tey moom dañuy summi casquette euh, président Marie yi fee summi casquette politique bi fee mais sol casquette boo xam ni naxar la ak euh, euh, maanaam di jooy la ko lii nga xam ni moo dal ci kawam dal ci kaw suñu kaw ñun ñëpp parce que kii may wax ak man sama euh, jarbaat mi ngi yewoo seen kër parce que magam jël na sama doom soxna kon donc ay mbokk lañ vraiment métti nañu luñ ciy wax rek maanaam am na lu ñu bàyyi euh, am na ñeneen nag vraiment ñu ko gën a jege aussi soxla nañ ñoom it ñu joxe seen contribution mais kii daal bu ñu doon wax ci moom fii ak suba du ñu jeexal bi ñu ñëwee it bi ñu ñëwee it li ñu njëkk a remarqué mooy gisuñu fi benn euh, média te lii dafa jar médiatiser moo tax ma ne ko naa woo Babacar Ndaw laa njëkk a woo woo vraiment ngeen def si taxawaay bu am solo yéen journaliste yi eh, eh, trent minutes ngeen dajale journaliste yëpp ñu ñëw jël ko vraiment dañ leen si sant amal nañ leen eh, sant amal nañ leen ngërëm parce que bu ngeen doon séntu ñu jox leen dara kon du ngeen ñëw mais koo ko wax mooy yàkkamtee woo la pour ñëw journaliste yëpp ñoo woote kenn ku ne jël sa moyen ñëw kon aussi dañ leen sant di leen gërëm di sant aussi waa Sapeur parce que depuis minuit ñu ngi fi depuis minuit taayiluñu xam nga ne di kon du ndaw minuit ba 11 ngay fay te mënta fay du lu ndaw président léegi rek laa ci waxtaan nag monsieur le maire Lamine Diallo dama ne ko Sénégal xamuñu jàmbaar Sénégal tappalekat lañ xam parce que tey jii entreprise bu mel nii ñu am ko lu day ni mbir carte bi ñu ngi sant yàlla nag bi ñu amee président boo xam ne moo doxal boppam arrêté ko ñuy xool sénégalais yi ak tey jii boo ñëwee Thiès hôpital régional nit ñi xajatuñu fa tey war nañ faa daggal loo xam ne Sénégal yëpp mën nañ koo fajoo ñii yor entreprise moom lañ daal fa daggal loo xam ni ñoom lu ñu bëgg a def mën nañ ko fa mais ñu jël ko jox ko ay tappalekat ñu séddoo ko mais président arrêté nañ ko mais yooyu fii la jekkee nit nag moom légal xam nga fan nga tollu nga am pexe mais boo amul pexe mënoo légal parce que su fekkente ni yàlla daa may puxus bii doomu fi nga xam ne war nga mën a suturaal nekk si ay loxo doomu adama nanguwuñ la koo jox fa nga am rek ngay jël nga defoo sa entreprise parce que doo bàyyi sa entreprise mu taxaw ñi nga ñuy ci yow it doo leen bàyyi mais ñu mel ni dañ leen war a di séntu vraiment di leen jàppale place yi nga xam ni yellool nañ ko ñu jox leen ko parce que dëkk bi moo jógee ci li mu nekkoon dem ci yeneen loxo kon yooyu dañ koo war a saytu saytu liggéeykat yi fu liggéeykat xam xam nekk war nañ koo xam fu tapalekat aussi nekk war nañ koo xam lii ñu daan naan toog muy dox buñ ko fi jëlee it nañ jàppale ñi nga xam ni dañoo euh, am courage di liggéey di jàppale doomu aadama yi te ñu ñu mel ni bëri nañ fi. Thank you.